xool jaar-jaaru senegal war na xam ne dafay ñëw jàll waaye nag lu ñuy waajal la pour bañ mu bettuñu moo tax ma ni li war a jiitu mooy suñu réew mi dafa am lu ñu ko lu ñu ko baaxee mooy jàmmoo ak salaam bi fi nekk nit ñi même bu ñu bokkul xalaat am na loo xam ne ku ne war na ko sàmm ci boppam muy jàmmu réew mi d'abord muy respecté itam façon dund bi nga xam ne ñëppoo ñee Sénégal ci loolu ñu waaso seetuñu xeet ñu région ñu diine ni ñu ko defee léegi jullit yi kenn ñoo wax fukk mënoon nañu wax te ku ci wax rek dañu koy nangu église bi ñaar wax nañ fii église catholique wax na église protestante wax loolu mooy diversité foog ñuy nangu différence di am doomu aadama yi ñu koy respecté itam ku ne ñu respecté la sa ngëm-ngëm respecté sa choix ak sa bëgg-bëgg loolu nag dafa laaj ñu dëgëral charte réew mi dëgëral institution réew mi dëgëral euh, démocratie réew mi mooy ñu war a respecté li nga xam ne mooy charte réew mi nga xam ne moo ñu tënk ñun ñëpp ñu war ko respecté respecté institution yi représenté réew mi loolu que ñu ànd ci politique bañ ci ànd war nañ ci mën juboo opposition ak majorité ci yam wala non aligné ku ne war na xam ne réew mi dafa am ay charte mu sàmmante ak charte yooyu doog a laaj àqam parce que noonu lay mën a demee mais mënoo di laaj sa àq rek fu nekk nañ ko respecté te yow doo respecté benn wa euh, wareef boo xam ne tegu na sa ndodd loolu tam mënul nekk donc nag loolu ñëpp la war ñu fexe ba jàmmoo boobu nekk ci Sénégal ñu mën ko dëggal mun koo yaatal ndax jamono ji ñu nekk suñu borom moo ñu baaxee ñu am wërsëg bu bees bu feeñ ci réew mi muy pétrole muy gaz ba ci or boo xam ne léegi macha allah commencé na yaatu loolu nag saa yu feeñee si réew coow li dana bëri ndax ñu bëri danañ bëgg a ñëw andi jeexi jaaxa indi ay jafe-jafe mooy di ñuy wax léeg-léeg nga gis ci géej gi piraterie bi commencé bëri ah terrorisme sax mën na ci dugg loolu dafa dafa laaj ñu waajal ko waajal ko ci larme bi ak ñi nga xam ne ñoo yor force de défense et de sécurité pour que alal jooju nekk njariñ si askan wi que looloo tax ñu jëngatu mu bañ a nekk luy ñëw rek romb nit ñi nekk ci ay xiroo ak féewaloo